ñi ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëwaat ak yéen ngir wéyal téere bi nga xam ne moom lañ doon firi ci wolof muy al abdul xadim wa aladul ayman ibrahim ñu defan ko jëmale woon ko ci borom daaru ak sëriñ bi kon fii lañ ci tolloon muy taqsimul adwar ala yadil xalifat ibrahim léegi nag ginnaaw sëriñ bi subaab yi doxe nañu doxe ak moom ba ba ba jëlee ko mbakki bari yóbbu ko mm, fa euh, mu wuti ndar euh, bàyyi fi borom daaru kon borom daaru mooy daal di wutu sëriñ bi mooy nekk maanaam ab xalifaam ndax moom li sëriñ bi bàyyi wutal ko kon ni borom daaru def bi sëriñ bi demee mooy dafa seddale dafa seddale dafa séddale euh, rôle yi maanaam kenn ku nekk la nga war la nga war a la ci biir liggéey bi ko sëriñ bi bàyyee waaw kenn ku ci nekk mu am lu mu la féetaleel nga nekk ci di ci yëngu waaw bunt bi ci loolu lay wax kon maam Thierno rafet goo xam ne rafet na ko nu mu nu mu jiitee ak nu mu euh, Mm, ni mu tege mbir yi ci yoon waaw maanaam rafet gu mu rafet nu mu jiite ak rafet gu mu rafet nu mu organisé mbir yi ak xel mu lëng mi nga xam ne yàlla jox na ko ak ni muy doxee ci kaw uh, alxikmatu nga xam ne lu ci nekk rek da koy teg ci ak xereñe loolu tax na uh, mu am benn système bu yéeme boo xam ne nii daal Euh, ci jamono bi ko fi sëriñ bi bàyyee mu wutu ko système boobu moom la moom la doon doxale euh, yoonu murit maanaam ci système ci ci système boobu la yoonu murit doon dox ba ni sëriñ bi ñëwee nga xam ne euh, maanaam doxalin la wu wu wu maanaam wu yéeme wu woo xam ne daal day tegu fa mu war a tege. waaw li yuxiqa al xaqa wa yu al batil walaw kariha al mujrimun moom leen lu ci nekk rek euh, mu seet ña ko ña nga xam ne ñoo ko war a yore mu jox leen ko ña ko mu bañ leen koo jox noonu la doon doxe waaw mu mel ni wa axtal xaw sa bariha waaw bu doonu bu doonu xala nga nga mën a wax ne kon daal nay seet ka nga xam ne moo ko yàtt mooy euh, waa ja ko defar mu delloo ko ko maanaam mbir mu ci nekk daal day seet ña nga xam ne mën nañ ko mu jox leen ko bu ko defee noonu la doxe ci biir ni mu doon doxe bi sëriñ bi nekkee ci tukki bi dafa mel ne dafa jël doxaliinu Seydina Abou Bakar bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina ba muutu ko wax jooju ma waxoon wax ne yéen nit ñi dañ ma dañ maa teg ci seen kanam waaye du caagante man maa leen gën bu fekkee rafetal naa na ngeen ma jàppale su fekkee dama ñaawal nangeen ma jubbanti daal di wax ne dëggu mooy sécurité waaye fen mooy wor nit ki bu néewee doole euh, ci man Aboubacar damay dama koy dama koy jox maanaam dama koy jox doole dama koy jox kattan euh, li fekk euh, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi doon ku néew doole ci misaal bu buñ jëlee ci moom yëfam ñu jël ci moom loo xam ne moom moo ko moom di aqaam nee na lu mu néew new doole day daal di am doole fi man ndax bala ma am jàmm rek lay àqam danaa fexe ba delloo ko waaye nit ki lu mu lu mu nuru nuru lu am doole ba noppi doon kuy tooñ di jël di jël nit ñi seen àq di jël àqi nit ñi nee na kooku munta am doole ci sama kanam bala ma am jàmm rek il faut lay àqi nit ñi ma jël ko ci moom daat koy delloowaat nit ñi daal di wax ne ehm, jihaad moom ci yoonu yàlla ehm, amut menn mbooloo ma koy bàyyi ehm, te yàlla du leen nattu teg leen toroxtaange daal di wax ne euh, njaalo te mooy faaxisha lu ñaaw lu bon loo xam ne neexul yàlla li fekk mi ngi am ci nit euh, nit ñooñe yàlla da leen di nattu du leen teg ay musiba leen teg ay mm, maanaam balaa kon na ngeen ma topp euh, waaye nag li fekk maa ngi topp yàlla di topp yonent bi na ngeen ma topp ci loolu waaye bu fekkee nag dama mooy yàlla mooy yonent bi kon man Aboubacar mm, bu leen ma toppate kon loolu Seydina Abu loolu Sey Seydina Aboubacar waxoon bi nga xamee ne euh, wuutu na yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ne kon borom daaru doxalin woowu rek la indiwaat di ko fi bi bàyyee dem ci tukkib géej gi. ba tey doxaliinu Sey Seydina Omar bun Alxatab doxalin woowu rek moom la moom la indiwaat la Sey euh, la Seydina Omar waxoon ne. Euh, dañu ma jiital ci seen kanam waaye ba tey du caagante ne man maa leen gën bu ngeen ma gisee ma ne ci dëgg dangeen ma jàppale waaye bu ngeen ma gisee ma ne ci caaxaan it na ngeen ma jubbanti kon euh, nii mu tënkoo ci doxalinu Seydina Aboubacar tënkoo ko ci doxalinu Seydina Omar loolu tax na bakkan mënatut a amati ci xolam moom borom daaru wala ci jëmmam doole waaw bay jeexital ci moom maanaam bakkanam munta munta am ci boppam ci biir ak ci biti doole bay mën a jeexeetal ci moom waaw nga nga xam ne <coughs> boo amoon ci moom doole kon su boobaa da gis mu mel ne eh, jiital ki ko sëñ bi jiital mu ne ca kanam loola dana ca yëg boppam wala da dana dana ca dana ca am num ca num ca xaw a doxee waaw ñoom ci misaal mu mu mu mu xaw a dund ne moom moo jiitu wala boog moom moom moom moo doon ku kawe nit ñi wala yu mel noonu. waaw waaye eh, eh, doon gum doon maanaa ku defaru tax na mboolem jikko yi nga xam ne day wuute ak eh, rafetuk maanaa mboolem jikko yi nga xam ne day day wuute ak li ñuy tuddee maanaam xosnul idaara mooy nga mën a diriger mën a mën a mën a mën a mën a mën a teg mbir yi ci yoon mboolem jikko yoo xam ne day wuteeg loolu loolu dañuy gis ne maanaam moom borom daaru nekkut ca la lépp loo xam ne ba tey day wuute ak euh, li ñuy tuddee muqawamatul imaama mooy mooy li nga xam ne bu nekkee ci yow danañ xam ne yow mii nag ku mën a jiite nga ku mën a ku mën a ku mën a taxaw ci responsabilité boo xam ne dañ ko teg ci kaw mboolem jikko yoo xam ne day loolu dañuy gis ne moom borom daaru nekku ca moom la mu nekk mooy mat la mu doon waa sëñ bi bàyyeet loolee mu téye ko té mu rafet te sax booy xool loolu ma doon wax noonu day mel ne munta nekk ci moom maanaam munta nekk ci euh, jikko yu wuuteeg luy jikko yoo xam ne day wuute ak mën a jiite waaw jikko yooyu munta nekk ci moom ndax moom liggéeyub sëriñ Tuubaa la sëriñ bi moo ko defar nag ci loxoom waaw nga xam ne day mel ne moom jeexiti sëriñ bi la waaw sëriñ bi moo ko moom moom moo ko formé bàyyi ci moom màndarga ya mu ci moom waaw kon euh, munta sikk munta am benn defoo waaw ndax day mel ne liggéeyub sëriñ Tuubaa kon noonu la maam Thierno mi fi sëriñ bi bàyyi di ab xalifaam noonu la tege benn système bu yéeme. rôle yi mooy euh, euh, mag ñi mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te sëriñ bi bàyyiwul leen fi ñu ànd ak maam Thierno maam Thierno kenn ku ci nekk mu am lu mu la féetalee nga am role boo xam ne yow da nga koy suyee ci biir euh, liggéey bi nga xam ne kenn ku ci nekk la nga la nga xam ne moom nga jagoo moom nga mane loola la lay bàyyi nga féetewoo ko waa bu ñu seetloo am na ci ñoo xam ne nii walla am na ci. mag ñi koo xam ne mi ngi féetewoo wàlluk jàngale alxuraan am ci koo xam ne am ci ñoo xam ne ñu ngi féetewoo njàngaleem xam-xam maanaam téere diine yi moom la ñuy jàngale am ci ñoo xam ne am ci ñoo xam ne la féetewoo mooy eh, di wuti ab dund ngir njaboot gi fi sëriñ bi bàyyi ñu mën ñu mën leen cee dundal kon bu ñu delloo ci téere bu sëriñ Basiiru moom sëriñ Tuubaa di Minanul Baaxil Xadim dañuy fekk luy dëgëral wax ji nga xam ne wax naa ko ci ni ni maam Thierno toxalee gannaaw sëriñ bi ci euh, mag ñi kenn ku nekk mu samp la euh, bàyyi la nga yëngu ci la nga ma ne kon ma indi waxi sëriñ Bassirou jooju fii sëriñ Bassirou dafa wax ne waaw noonu daal la mbir mi demeen nee na waaw léegi maanaam sëriñ bi dem bàyyi waa këram bàyyi njabootam bàyyi muridi gannaawam daal di jël léppam nag ci yi mu wax fii muy njaboot gi ak ak murid yi ak waa këram ñëpp mu bàyyi leen rakkam yi nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim nee na bi nga xam ne sëriñ bi nag dem na ndar ba am fa ab diir ci la yónnee maam Thierno ab leetar daat koy wax ne ko nag mën ngaa seet fu la soob nga nekk fa ak njaboot ga waaw bi nga xamee ne sëriñ bi dem na foofee nag ca Gabon nee na. Euh, maam Thierno nekk na baar yi foofee ci Jolof euh, diirub nawet bi maanaam ba ni nawet bi wàccee maam Thierno mi ngi foofu ci Mbacke yi ndax nee na euh, bi sëriñ bi dem booba ci mujjug nawet bi la waaw nawet bi jeexagul waaye ci mujj ga la mooy ama jey sa si tolloog 1313 mooy 1313 ci atum jullit waaye nee na noonu la maam Thierno. toxoo nag ànd ak njaboot gi ak bagages yi daal di dem Mbàkke Bawol daal di taxaw nag moom maam Thierno mu taxaw ci dénkaane eh, bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bàyyee woon eh, taxawaay bu mat nee na murit yépp nag daal di nekk ci gannaawam eh, loolu sëriñ Basiru ma ko wax. ba tey ci biir téere boobu di Minanul Baaxil Xadim di téere sëriñ Basiru boobu. Euh, dañ ciy fekkaat loo xam ne ba tey euh, ci maanaa boobu lay wax même ci maanaa bi la maanaa ci lim doon wax fii euh, loolu la cay waxaat xañ na bokkuñu ban xët buñ nekk waaye boo boo doxaatee ba ca biir passé da ngay gisaat muy waxaat ci lu mel nii moo tax ma indiwaat ko fii waaw kon fii mu ngi fi waxaat ba tey ne noonu la mbir yi demee nga xam ne kon taalibe yi yi fii sëriñ bi bàyyee bàyyee leen maam Cerno liggéey ba ñu doon def te teg ko ci euh, maanaam euh, taalibe liggéey boobu nekkul di taxaw waaw euh, la doon def te teg ko ci taalibe boole ci di taxaw ci li leen sëriñ bi bàyyee ak seen seen léppit ñu tënku ko ci ki nga xam ne moo wutu sëriñ bi moom la sëriñ bi bàyyi di mooy Cheikh Ibrahim nee na loole dara taxawu ca waaw ñi ngi doon ñu ngi doon ñi ngi doon liggéey liggéey boo xam ne dañ koy teg ci al irada di taxaw ci li leen sëriñ bi sant euh, topp ci gannaaw kii fi sëriñ bi bàyyi di maam Cerno waaye nee na daal diggante si nga xam ne rek euh, mooy diggante su metti si lool ci ñoom mooy euh, mooy bi sëriñ bi di doog di dem waaw nga xam ne daal ñoom ñi ngi nekkoon ak sëriñ bi ba yàgg sëriñ bi jékki-jékki rek nekkutuñ di ko gis waaw loolu daal diggante diggante soosu moom ci njëlbéen nga metti woon na lool waaye nee na mujjaat nañu nag euh, nekkaat benn ñoom ñëpp ñu tàmbaliwaat nag di jihaat euh, ci seen alal ci seen bakkan mm, ci yoonu yàlla waaw seen seen seen lépp rek maanaam ñu delloo ko ci yàlla di yëkkati seeni euh, liggéey maanaam luñ luñ man luñ man rekk ci liggéey liggéey bu baax loole mm, ña nga ca woon maanaam di e, nekk di saxoo jàng ak jàngale ak liggéeyal yàlla ci loolu la la taalibe yi nekkoon nee na moom mi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyit muy ab xalifaam di maam Thierno nee na la ko sëriñ bi dénkoon it loola taxaw na ci te mooy wéyal euh, maanaam di sàkku xam-xam maanaam di def euh, di di liir ci téere yi ba tax na mu daal di xereñe mboolem fànn yi nga xam ne dafa aju ci xam-xam yëpp borom daaru daat koy xereñe euh, mën koo jàngale boole ci dégg ko dégginu wóor loolu nag tax na mu ànd ak mboolem taalibe yëpp rek ci euh, mu ànd ak ñoom di yëngatu ci euh, yoon yoon wi nga xam ne moom la leen sëriñ bi bàyyee mu wax ne maam Thierno Moussa wàcc yoon woowu nga xam ne moom moom la ko sëriñ bi Euh, euh, euh, maanaam moom la sëriñ bi nekkoon di ko rëdd bi fi nekkee maam Thierno mosu ko wàcc da caa tege ànd ak tali nekk ca nee na noonu la def ba tax na sëriñ Abdourahman Lo sëriñ Daam Abdourahman Lo nee na maam Thierno daat koy bàyyee muy jàngale wàllu alxuraan nga xam ne ci daara yi sëriñ Daam Abdourahman loolu jooju doomi sëriñ Tuubaa yi jamono booba ñoom ñoo fa nekkoon. te nee na jamono booba euh, ña nga xam ne euh, waaw ñu fi sëñ bi bàyyi woon daal ñoom booba ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi toll ci war a dal wala boog ñoom ñëpp daal maanaam ñi ngi ci jàng daal moo tax kon sëñ Abdou Rahman lu mu leen doon jàngal maam Thierno daat koy samp mu yore liggéey boobu. moom it sëñ daam nee na mu taxaw ca taxawin wu rafet euh, waaye taxut sax waa kër sëñ bi rek nekk fa nee na mboolem dong yi euh, seeni doom it euh, ñu tàmbali di ko andi foofu ci sëñ daam mu di leen di jàngal nee na bi maam Cerno taxawale sëñ daam mu yore wàllum jàngalem alxuraan bi ci kooku noonu ma ko waxee maam Cerno daa di dëkkal sëñ daam nag mu daal di dëkk Touba nga xam ne foofu ci Touba. Euh, la ko la ko la ko euh, dëkkal mu nekk fa ndax tuuba xaw na nekk di xaw a sore ak yeneen bërëb yi nga xam ne moo ko wër <coughs> kon euh, ba tey ci téere sëñ Basiru bi buñ ca jàllaatee ci yeneen passé waxaat na ci lii nee na kon dangay daal di xam ne maam no moom la mu def mooy sëñ Daam Abdourahman Lo la bàyyee wàllug njàngaleem alxuraan mi. waaye yemu ci waaye da ko caa dëgëral waaw daal di eh, fa mbooloo mu bari ñoo xam ne ñoom ñooy jàng ci sëñ daam eh, sëñ daam eh, lépp loo xam ne mooy tax nit ki mën a am ak dëgër ba mën a jàngale loole ba maam Thierno daal cay taxaw nee na ba tey maam Thierno waaw nee na ba tey sëñ Ahmadou Ndumbe moom mooy sëñ ma Ndumbe moom it taxaw ci di nemmiku dong yi boole ci di leen soññi ci ci ñuy wéyal. Euh, dox bi ñu daan dox ci maanaam na ñuy wéyal seenu euh, liggéey daal ci euh, na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi tërale woon te mooy di di gën a yokk seen itte ci di yar nit ñi ak di leen yéegale waaw ak ba tey képp koo xam ne dangaa war a toll ci jàngum xam-xam mu di la ngay ñëw ci borom daaru di jàng foofu ci moom xam dee liggéey Mm, moom it mu yabal la ci borom daaru ngay nekk foofu nag di tërbiyewu maanaam nag di tàggat sa bakkan mm, ba tey nee na muy soññi dong yi ñuy ñëw di siyaare ci di maanaam di siyaare si maam Thierno di man di jëriñu ci moom di taxaw ci lépp loo xam ne daal ay soxlaam la nee na sëñ Manoumbe mi ngi bokk ci eh, mag ñi daal ci mag ñi lool la bokk waa ñi nga xam ne daal. Euh, ci njëkk ànd ak sëriñ bi la bokk waaye teewut euh, mu continuer ànd ak njabootu sëñ Tuubaa gi fu jafe-jafe amit nee euh, da cee taxaw taxawin wu rafet ba tax na kon la nga xam ne moom la ko borom daaru féeteeloon moom mu féetewoo ko muy wàllu googu ma ne moom it lam ca war a def lépp it mu daat ko cay def kon nee na noonu la dong yi yi fi sëriñ bi bàyyi woon dem ci tukki bi noonu la ñu defoon. waaw seen lépp ñu teg ci yoon yeesalaat yoonu murit maam Thierno mi nga xam ne moo wuutu sëñ tubaat nee na moom mm, mu nekk ca jàkkaja ja maanaam mu mu mu taxaw ca jàkka ja di jiite waaw nga xam ne daal moom moom nee na mu nekk imam bi di jiite comme mm, ni nga xam ne sëriñ bi mi fi nekkee noonu la daan jiite maam Thierno di jiite noonu ca jàkka ja waaw na noonu daal la mbir mi demee. Euh, nga xam ne lépp daa tegu ci ni ko sëriñ bi rëddee woon rek yoonu murid daal di gën a yees mbooloo mi daal di gën a yaatu daal di gën a bari kon loolu mooy li euh, euh, sëriñ Basiiru wax ci téereem boobu di minal baaxal xadim ba tey ci téereb sëriñ Walla mi Jóob Dagana di irwa un nadim min abd bi xubbil xadim dañ cey lii sëriñ Walla wax ne kii di maam Thierno daal ay mbiram daanaka du jar laaj ndax moom mooy ki àndoon ak sëriñ bi euh, noo ko noo ko noo ko melale rek daanaka mbiram nekk na di kawe loola ndax nee na euh, Ibrahima mi di borom daaru mi mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi bàyyi woon njaboot gi moom la bàyyi woon bagage yi jamono jamono yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ci tukki géej gi mboolem ñi àndoon ak sëriñ Touba nekk ci gannaawam waaw mag ñépp rek nga xam ne sëriñ Manoumbe moo nekkoon seen jëwriñ ñoom dongo yi maam Thierno nekk Euh, seen jëwriñaat ñoom ñëpp nga xam ne moo ne ca bopp ba waaye sëñ Manoumbe nag jiite euh, dong yi nekkoon ci euh, biir daara ji ñoom ñëpp daal nga xam ne moom sëñ Manoumbe mooy dem di dikk ñi nga xam ne xañ na àddina xaw na leen kii wala ñu xaw a jaaxle ci demuk sëriñ bi mu di leen dëfal di leen yee nee na borom daaru moom it taxaw taxawin wu rafet ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñi ñi ci toll ci jàng ñu jàngal leen ba ñoom ñëpp ñu mokkal alxuraan ci diir bu euh, ci diir bu gàtt laata sëriñ bi dikkaat ci tukki bi laata sëriñ bi di jóge ci tukki bi nga xam ne amul dara ci mbirum sëriñ Tuubaa lu ci yàqu moo wax ne borom daaru des na ko euh, misaal des na joxe misaal ci moom ci istiqaama ci ci ci ci sax euh, ci lu baax sax ci njub kon nag yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla fayal fayal na ko yoonu murit moom sëñ bi la loolu wax ci. téere boobu tudd irwa un nadim ba tey ci téere bi ñuy wax nubza mubaraka nga xam ne moom sëñ Mat Lamin ba tey moo ko def danañ ci fekk ay wax yoo xam ne sëñ Bakki Bousso moo ko wax moom da ko nett la sëñ Bakki Bousso moo ko wax te mooy lu jëm ci tukki géej gi ak taxawaay ba nga xam ne maam Thierno am na ko ca ak ak ak na nga xam ne noonu la noonu la doxalee mbir yi maanaam mooy ni ko nosee kon ñu andi Euh, loola laa nga xam ne moom la sëñ euh, sëñ Mbàkke Buso wax foofa ci nupp sax te sëñ ma dem andi ko ci téere ba moo wax moom sëñ Mbàkke Buso ne bi nga xamee ne sëriñ bi dem na ci tukki bi géej gi maam Cerno moom nag moom moo fi des doon ab xalifaam wutu sëriñ bi ci njaboot gi ko ci bagage gi ko ci mboolem taalibe yi waaye nee na maam Cerno rafetal na euh, ni mu wutoo sëriñ bi rafetal na ko ndax dafa ànd ak yi ni nga xam ne noonu la sëriñ Tuubaa àndewoon ak ñoom rek ci euh, mooy liggéeyal yàlla ak di def sikar ak di jàngale euh, wàllu tawxiid te muy ngëm yàlla nee na noonu daal la euh, mbir ma demee nga xam ne daal ña nga xam ne ñoom la fa sëriñ bi bàyyi woon ña ca doon ay gone mu leen di yebal ci mag ñi mag ñi nga xam ne xañ na sëriñ bi leen wàcce woon te ñu nekk ci biir réew mi su ko defee ñuy dem ci ñoom ñoom ñu leen di jox addiye ñu koy indi nga xam ne ñi njabootu sëñ Tuubaa gi maanaam seen dara nekkut di sooke maanaam seen lépp euh, doon lu jag waaw nga xam ne daal seen dund seen taxawaay bañ ba nga xam ne moo ca war daal euh, maam Thierno taxaw na ko ca nee na euh, noonu la mbir mi demee nga xam ne léegi-léegi mu am ñoo xam ne dañuy bëgg a dugg ci yoonu murit waaw nga xam ne seex yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi eh, ca ñooñu la ñuy dem jébbalu waaw am ci ñoo xam ne ba tey dañuy dañuy ñëw eh, ñi ñi nga xam ne ñoo ne ci biir daara ji fi ci ci ci borom daaru te xañ na duñu ay mag eh, bu ñëwee dañuy ànd ak ñooña su ko defee di liggéey nag di roy ci seenu doxin nu ñu def rek ñu def ko ne noonu daal la mbir yi demee ba ne sëriñ bi jógee ci tukkib géej gi ci àmb kasasin ci weeru Shaaban te mooy baraxlu kon loolu mooy li nga xam ne moo aju woon ci euh, ni maam Cerno doxale bi sëriñ bi nekkee ci tukki bi nga xam ne kenn ku ci nekk dafa am lu la féete ma leeral ko ci noonu ni ko sëñ Basiru ante ak ni ko sëñ Mbale waxe ak ni ko sëñ Bakki bu leerale ci téere boobu di nopp sa bu ko defee nag fii dama fi leeral tuuti ci Euh, maanaam comme yenn xese yi nga xam ne dañ koy wëlbati waaw di wëlbati xese yi ak di ci yokk wala ñu ci wàññi loo xam ne daal da bokk yokk ci lu ju bokkut wala di ci wàññi loo xam ne da bokk te la koy waral xañ na ak soxor wala boog mm, di farfarloo loolu laay wax fii ci bunt bi moo tax ma wax ne léegi-léegi maanaam ak soxor ak parparloo ci jamono juñ toll nii mën naa gaar mën naa gaar ñenn ci bindkat yi ñi bind wala ñi nga xam ne ñu histoiral dañuy histoiral yoonu murit ak ba ci sax ñenn ñi nga xam ne dañuy def ay conférence di def ay waxtaan bu ko defee seen waxtaan yi ñuy def ak nettali yi ñuy def dañuy jël yenn xisse yi nga xam ne yu am taarix la ñu koy wëlbatiwaat waaw day am ñuy farli def loolu di ko wëlbati di ko waxee noo xam ne day dëppoo rek ak ñoom seen yëg-yëg ak seen i intérêt bopp waaw bu ko defee la ñuy wax wala la ñuy indi day wuute ak la nga xam ne moo ñëw ci ni ko sëñ Fallou waxee moo xam ne moom laa nettali ci waxtaan wala jàll sëñ Fallou moom sëriñ moom mi nga xam ne bi sëriñ bi di dem lépp moom ci kanamam la nam ko nettalee léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne dañuy waxee nu wuuteeg noonu ba tey li nga xam ne moo ñëw ci téere yi nga xam ne day histoireal yoonu murit lu mel ne téere bi ak téere sëñ Malamin boobu ak la nga xam ne sëñ Mbàkke Buso wax na ko ci nub sa Euh, ñoom da ci bari ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy wax wala ñu indi ci seeni conférence yoo xam ne day wuute ak loola waaw te wax dëgg yàlla bu ñu seetloo téere yi ma wax fii te mooy téere sëñ Basiru bi ak téere sëñ Malamin bi ak la sëñ Bakke bu so wax ak waxi sëñ yooyu loolu moom ay suusu la maanaam ay yax la yu leer yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, kenn mënu cee teg lenn kon nag xaj na ñoom bu fekkoon ne lii gaaru leen mooy jàngoro ji leen dal waxtaankat yi ak ñenn ci nga xam ne xañ ak coxor moo leen jàpp <coughs> bu fekkoon na léegi loolu gaaru leen yàlla yàlla yàlla yàlla def na ñu doon ñu mucc ci ak soxor xaj ne kon danañu bàyyi jëmmi xiste yooyu na nga xam ne noonu la demee duñ ca yokk duñ ci wàññi waaw te it sax duñ ca yem waaye dañ ciy sukkandiku ba bu ñu def ay waxtaan wala ñu def ay conférence wala ñuy bind dañ cey sukkandiku ndax loolu mooy li gën a wér waaw sëñ Fallou wala sëñ Basiru la mu indi ci téeram ba wala sëñ Malamine mii la mu indi wala sëñ Bakki Bousso loolu moo gën a wér ñoom euh, lañuy wax waaw kon xaj na bu leen euh, bu ñu amul woon lenn ci coxor wala boog mm, lenn ci ak parparloo danañ danañ mën a bàyyi xisse yi na mu demee duñ ca yokk duñ ca wàññi waaw ndax euh, buñ ko bàyyee noonu noonu mooy gën a wér waaw na nga xam ne noonu la ko sëñ Fallu nettalee sëñ sëñ bu Bousso waxee ko noonu. Euh, sëñ Malamine ak sëñ Basiru loolu mooy li gën a wér te ñoom nag mm, dañ ko fekke woon waaw bu dee sëñ Fallu moom mbir ma ca kanam moom la sëñ Basiru moom dund na ak sëñ bi sëñ Bakki bu sot noonu sëñ Malamine noonu kon ñoom lañ lay wax du bokk ak yow mi nga xam ne da ngaa dégg rek ñu lay nattali kon yàlla na nu kon yàlla na nu leen yàlla fayal fayal ci maanaam yàlla yàlla na nu leen yàlla fayal ñoom ñooñu muy sëñ Fallu moom sëñ Touba ak sëñ Bachirou ak sëñ Bakke Bousso ak sëñ Malamine Diop ndax la ñu indi ci seen téere yooyu ak lañu indi ci seen wax yi ñu wax loolu lépp boo ko xoolee dëgg la te dëgg nag mooy mooy li nga xam ne mooy li wér waaw comme comme walla ni ko ni ko ni ko suñ borom waxee alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin man shaa fal yakfur waaw alxaqu saabitun dëgg mooy li sax waaye caaxaan moom lu mu ko waxee day mujj nax saay rek kon ñoom andi nañu histoire mooy wax nañu mbir ma na mu demee yokkuñ ca wàññiwuñ ca waaw ñu daal di nettali jëmi xisa mooy mbir ma nu mu demee dañ ko nettali nettali nu wóor te lañ ci jublu rek mooy ñii ñëwaat mbooloo mi ñëwaat ñu mën cee waaroo ñu man ñu ñu mën cee nekk di jariñoo comme ni ko alxuraan waxee laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab ma kaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa lasi bayna yadayhi hmm, kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan yi bu suba incha allah ñu jàllaat ci yeneen i ci bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa alihi wa saxbi zawrudu akin wa alihi wa saxbi zawrudu akin wa alihi wa saxbi alhamdulilahi alkarimi silminan ala sihali bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani liwatani bi nafa ma anfani